bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه waxadimi wasalama tasliman 50 kilo café Touba lay Serigne Saliou wan di segg bés bu ne moo ne liibër la tàmbalee jamono jooju mi ngi tolloog atum 2011 waaw maa ngi mu ngi ma fi indi 2003 2004 yooyu waaw waaw 2003 ci ay ay ay liggéey yu yu yu ñu ko waxoon mu gëjoon na ma gis sax mu woolu ma yónnee ndaw Tiwaawan mu woolu ma ma ñëw ni ma daam ay liggéey ñu ma wax Ndakaaru fekkee gënal na la ma boole la ci ma ne ko man óoma dara lu may lu may tàmm ak lu may kii daal loo ma tànn rek ci laa nekk ci la ma booleeg soñ bi suñ moom sëñ Mor Mbaye Cissé ma ni ma fii ci kër sëñ maa ñeneen nii dongo ñu nekk fa far def liggéey yooyu xam na dañ koy waxee woon sëñ bi ak ak na mu demee ma leeralaale sëñ bi sëñ bi waxoon ni sax ni ku ca nar a loroon na ko bàyyi ginnaaw bi nag nekk naa fi sax ba sëñ bi làqu mm, ba sëñ Baara nekk xalifa ba làqu ba sëñ Sidi Muxtaar eh, nekk xalifa man ne xalaatoon doon génnaar réew mi ko def yëf man ne daal ginnaaw sëñ bi daal ak fi mu toll woon ak fi mu toll ci mag ak ni ko àdduna soxla woon ak fi mu toll woon suñu borom am xelam jekki-jekki nekk ci man woolu ma indi ma fii daal xaaral ma jéem a toog fii rek xëy na yéen jooju yàlla du ko neenal jéem a xool lu ma def ci laa doon xalaat daal suñu forom euh, xel sama xel nekk ci café ma xam ni kafe gi nit ñi bëgg nañ ko te ñu koy defar ñëpp daanaka bu mu leen ko dàqul dàquñu dàquñu ma ko euh, ma ne naa ci jéem a sama yëfi bopp ci laa duggee ci café gi waaw waaw loolu nag maa sant suñu borom bu baax ndax bëri na ñi jaar ci man bëri na tamit ñi ma ci roy ci wàllu liggéey bi te léegi foo dem léegi nit ñaa ngi jaay kafe ndax ndax man ñi ngi ndax man ndax ñi ngi xemmee ne jaay kafe ndax man ndax ni ndax liggéey bi ni ma koy doxalee ak ni mu suñ borom euh, euh, defalee xéwal ak sëriñ bi ak yéene sëriñ bi fekk si ma ci moo tax kenn ku ne nga jaay kafe ndax man bëri na ndaw yi fiy jaar mille 2011 ba léegi maa ngi ci kafe gi bëri na ay ndaw yi mu fiy jaar ma leen di former ñi dem di bett seen yëfi bopp di liggéey ci kafe gi ak yeneen ba bitim réew si am na ñu ma ciy roy ci wàllu liggéey bi waaw maa ngi sant yàlla baax te itam maa ngi ci créer emploi boobu ba léegi waaw waaw daanaka lu mat juróom-benn nit ñi lañ nekk fii ci place bi di fi liggéey ma leen ni yoreel seen salaire seen lépp ñuy tedd fii ci man di ci yor seen njaboot. waaw kafe de kafe de moom moom moom moom na yoo xam si ñi bëri na sax fii bëri na ñoom Dakar daanaka ñu bëri xamuñu kafe na saf suukar rek waaw waaye café moom kafe gu jaar yoon moom kafe ak jar rek lay doon. waaw boo koy rax amee lu koy rax jar lay doon am na ñoo xam ne sax am na ñoo xam ne sax ñu yor estomac wala xeet yooyu ndax naka bëgguñu café ñu weex gi weex jar ba ëpp daanaka man sama café dama koy limité wala yooyu yëpp di sóoraale yooyu yëpp daanaka kafe ak jar rek lay doon waaye am na ñoo xam si na kafe yoo xam si maanaam am na ñoo xam ñu bëri ñoo xam dañuy rax seen kafe waaw dañ koy rax e, dugub wala ñu rax ci yeneen ak yeneen nga xam boo ko seggee day am wala mu am wala maanaam daal mu am nu mu mel daal nga xam si boo xamul café sax boo xanaa ne da ngay jàpp ni noonu la café Touba mel te fekk café Touba moom moom bu jaar yoon moom dalay jariñ waaye amul benn loraange dalay jariñ rek ci nekk ndax day baga Serigne Touba day baga Serigne bi te man bëri na ñoo xam ne si dañuy ñëw fii ànd ak nit sax kenn ki jënd naa ko mu jënd mu naa ko man du ma naan café waaye kooku danaa ko waaw kafe yi nga daan naan yi ngay bañ a naan ak bii bokkul yow barkeeloo ci wiire waaye barkeeloo rek yàlla def bëri na ñoo xam si fi la ñuy ci man ñii ci la ñuy ci la jaar di naan kase ba léegi man am na ñoo xam si daawuñ naan kafe waaye dañ may wax ni ma yaa tax ñuy naan kase ndax kase gi ñu daan naan ak bii bokkul ndax am na kase yoo xam ma ko daan naan nii la may def nii la may def daf may nangam daf may nangam waaye yow sa kase yow duñ def dara man leen kase gu jaar yoon moom dalay jariñ rek ndax euh, lii moom képp ku ci nekk moom boo ko seetlee moom maanaam képp ku ko naan njariñ rek nga ciy jëlee waaye lor moom amu ci. waaw ndax day bagage Sëñ Tuubaa mata waaw am na ci yoo xam si parfois dañuy am ay cant yoo xam ne dañuy ñëw wax ma ko bu laaje mm, ma ma defaral leen ko fii ñu ñëw jëlsi ko wala bu laajee itam ma dem fa ñu ñu ñu wax li ñu soxla ci café ma dem fa defaral leen foofu am na ñoo xam ne mi ñëw ma jaay leen poudre bi ndax damay jaay poudre bi. damay damay jaayale poudre bi am na ñoo xam tamit dañuy dañuy dañuy wax li ñu soxla ci ci ci ci quantité café ci kafe ci ñu mu toll ci mi ñu segg ba pare wax ma heure bi ñu ko jël si yooyu yëpp ma defare leen ko. am ñu nekk ba bitim réew sax ñoom bi dañuy yónnee fii poudre bi ñu leen koy jëndal ndax dañuy dañ dañ naan leen eh, dem nañ sëñ Saliou ñu jëndal ñu foofu kafe ndax café moom ngay naan rek te du am benn eh, jafe-jafe boo xam ne bu ko ci gis waaw. bëri na ñoo xam si tamit ay màggal yi yooyu yëpp dañ dañuy dañuy ñëw dañuy ñëw fii di jënd poudre bi di ko yóbbaale Touba bu ne mee moom la defar foofu Touba. bëri na sax ñoo xam ne si fu ne nit di jóge daal di ñëw di jënd si fii kafe poudre bi ak café bi ñu segg ndax bëri na yoo xam yoo xam lañ jóge bu ñu wàcc fii lañ jaar côté bu ne ba Grand Yoff Grand Dakar am na ñoo xam si ay kilifa yoo xam ne si sax fii la yónnee café subaa ngoon fii nii ci man ci man sama café gi daal lañ taamu. waaw ginnaaw après élection yi ba léegi maa ngi fi wax mais maa ngi woon ci biir na ci biir laa njëkkoon a nekk après 2011 bi élection yi passé ci la ci lañ ma déclaré place bi ma ñëw fii ma génn fii ñëw fii waa moo ne ñu bëri yaakaaruñu woon ni ak melokaanam dina dugg ci njaayum café waaye boobu xamuñu ne taalibe Baye Saliou gi ku woyof la te bëgg liggéey. waaw man man jamono yi may damay jaay kafe ñi ma nekkaloon dañoo jàppoon ni ab na rëyu jaay ko ndax booba jamono yi ni ma mel ak ni ma naan solo daan soogu jiw sëñ Saliou di daan nekk daan ànd ak sëriñ bi daan nekk ci kër sëñ ba parfois bi sëñ bi dem ci daara yi ma ànd ak moom wala leen ak muy ba daan voyagé dem ay Côte d'Ivoire yooyu di ñëw dem nekkoon naa fi Tiwaan doo def ay commerce lu ne ñëw fii di ba léegi jamono jàpp nañ ba mu ne damay jaay kafe jàppoon nañ ne man am am naa rëyu nekk di defar kafe di jaay ba ma leen ñu ma nekkoon kese bi ma leen damay jàkkaaf dañu wax ah Baye Sall mii ne sëñ Saliou mii ne day wax rek day sóob rek Baye Sall di jaayul café day xam ngeen day day wax rek mais man boolu ma samay wax ma dem di jënd samay matériel ab liibaru kafe laa tàmbalee liibaru kafe liibaru kafe ci biir marché bi am ne sama suñu ëbbo ndongo mi nekk fii waa ci waa Mbakon Mbak sama mbokk Mbakon Mbakon lañu ma dem fa ma ne ko man kat damaa bëgg a jaay café Eh, dama bëgg ngeen may seen bu nu bi fa laa tàmbalee jaay café xam si gaas ba ma njëkkee tàmbalee jaay kafe mu jëng ma yoroon ko sëñ Tuubaa gi jamono yi ndeysaan noppaloogul yal na ko yàlla yërëm dolli koy xiiwal fa mu nekk moo eh, moom al ab gaas xam si ba ci moom al ab gaas moom laa tàmbalee ak liibaru kafe xam si na ma ko am na ñoo xam ne ku leen ko waxoon ñu saaga la ñu ne kii daf ma yëpp waaye nag na ma tàmbalee xam naa yéene sëñ bi fekk si ma ci ak pas-pasu liggéey bi ma amoon ak yéen ji sëñ bi indee woon Dakar bi suñ borom fekk si ma ci liggéey ba ba léegi ma nekk di ci dimbali ay nit di ci tedd di ma bëgg a def lépp ma ko def bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xadimi wa safaru bamsasin junnatun bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa xadimi wa sallama tasliman safaru bamsasin junnatun bismillahi rahmani rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما سفر بمسز جنة xam naa doole ji moo fi nekkul waaye bu ma sañoon day dama koy gën a yaatal gën a yaat ci fépp gën a gën a yokk emploi yi ndax bu yaatu woon bu ma amoon yenn doole yi tey dinaa mën a créer emploi yu bëree bëree bëri lu mel ni état tey jii buñ jàppale woon def jox ñu ay financement ay yooyu waaye fekk ko waaye ñoom ñoom mu ñuy jàppale daanaka duñu fi ñu fekk créer créer wul dara ñu jox ko xaalis boobu da koy lekk wala mu noose ko wala mu def ci leneen xaas ba seey waaye koo xam ne da ngay xool booy jàppale da ngay xool ku taxawal dara di góor góor di kii nga ñëw jàppale ko may ko doole bu defee moom xam na la muy liggéey ba xaalisam du seey ba entreprise ba dina gën a yaatu te dina gën a yokk ay ay emploi emploi dinañ gën a yaatu créer emploi ñoom ñoo fa waroon fekk góorgóor ñi nga xam sos nañ dara ñu ñëw jàppale leen ñu gën a yaatu seen i mbir waaw état noonu la waroon def waaye wurtu fekk deful dara mu lay jox xaalis looloo tax ne nii emploi liggéey jafe ci réew mi ñi war a jàppale jàppale wuñu leen waaw nag bu ma amoon doole yenn doole yi tey jii lii xam naa xam goo xam si mën naa cee créer ay junni junni emploi yoo xam si daanaka ci région yeeg fu ne xam naa xam goo xam ne daanaka Dakar gii rek mën naa fee créer emploi yu bëree bëree bëri bëri waaye nag doole ji moo nekk nekkagul waaye am naa yéene ji bu baax a baax a baax liggéey sëñ Touba bu baax a baax a baax maa ngi koy ñaan sëñ Touba ak yéene ji mi sëñ Saliou indi woon suñ borom defal ma ko ma am ci lu kawe sama njort waaw te képp ku ma ci fekk si tamit maa ngi lay ñaanal ci barke sëñ Touba sëñ Touba teg la loxo bu baax yow it ñi ngi ci sant ndax ndax wax dëgg yàlla man boobu ba léegi ci laay tedd ci laay dimbali ay nit ci laay nit jël ay nit di leen ci fay waaw ci lay ji lay daal samay soxla daal ci la koy faj waaw waaw dëgg yàlla suñu borom def na ci barke te ñu bëri itam ñu ngi ma ci toppandoo ci liggéey bi maa tax léegi ñu bëri bëgg a jaay kafe ndax ñu bëkk ma dañoo jàpp ni moom jaay kafe moom <laughs> moom daal dañ koo xeeboon daal waaye nag bi ñu ma gisee nag ma ma ma mel neen ni di jox man café rek lay lay jaay léegi ñu bëri tax na ñu bëri ñu ni bëgg nañoo jaay café ndax man waaye loolu maa ngi sant sëriñ bu baax xam naa ni yéene sëñ Saliou la waaw préparé moom moom ñun moom man damay wax sama gars yi buñ nee ma yéen ci safar ñun moom buñ màggale ba suba ga rek ñu ngi ci safar gi ba tàmbaliwaat jëm jëmale déwén ndax ñun bis ne ñu ngi ci xasida yeeg café gi ñun bis ne génn ñu bagage sëñ tuwaay maanaam bis ne ñu ngi ci bagage sëriñ bi ñun suñu yëngoo suñu dal yëpp bagage suñu Touba lañ yor muy kafe Touba gi ak xasida yi moo koy rax moom naka jekk moom ci la ñuy nekk ba at mi desiwaat waaw euh, di waajal màggal gi rek nag ñu ñaanal ñëpp ñu dem ak jàmm ñëw jam kenn ku ne am ay xiwal yu baax a baax a baax yi gën a yaat yoo nga gën a mën a sant sëriñ bu baax a baax maa ngi koy ñaanal ñëpp mboolem jullit yëpp ci barke Sëriñ Touba yàlla def yoonu jàmm ñëpp dem ak jàmm ñu fekk fa jàmm ñëwaat ci jàmm ci barke Sëñ Tuubaa waaye nag maa ngi sant saa ngi sant Sëñ baax a baax ak Sëñ Saliou Mbacké mi ma fi indi xam naa ne lépp mooma waaw xam naa dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy maanaam maanaam suñ suñ maanaam suñ sëñ bi daan wax rek maanaam doon yàcc rek ni ñaanal nañ ma ñaan borom moo koy dimbalil boppam waaw moo tax ma xam ni. jamono yooyu ma xam ni moo tàmbalee rek maanaam suñu borom dina ma dina dina ma jàppale. nit ki doo doo toog rek nit nangam laa bëgg a liggéey wala fii ak nangam du ma ko def bul xeeb waaw yàlla moom ay mbiram xamoo fan nga koy jaarale da ngay rek def li nga war a def bàyyi li ci des yàlla yàlla moom mooy àggale ay mbiram waaw waaye boo nee yàcc rek boo boo tëddee sa kër nii damay xaar foofu dépasse wala xaar tëdd sa kaw la ni fa la may fa la li may li may li may li may li def sa kii na boobaa da ngay sonal sa bopp waaye nag yàlla moo ñu digal ñu sabablu sabablu bi nag mooy bañ a xeeb dara waaw loo am rek nga tàmbalee ko ak bañ a bañ a xeeb dara waaw nekk ci la nga war a nekk rek li des moom wërsëg moom yàlla moo ko yor waaw yàlla moo yor ay mbiram moo xam yow da ngay def la nga war def rek bàyyi di des yàlla. waaw di sant rek di nuyu waa sant mbokk taalibe yeeg ak ñi nga xam si kenn ku nekk ak yëg-yëg bi nga ñëwee ci béréb bi ak ñi fi ñëw ñëpp rek ak waa Colobane nag euh, waa Tiwaan ñoom ñëpp maa ngi leen siyaar di leen sant bu baax di leen bégg bu baax a baax ak euh, fépp fu waay mën a nekk rek sa sama soppe te am xembanteef di place bi di fi ñëw ak ñi am yéene ñëw fii ñëpp rek am na ñoo xam tey bu ñu sañoon ma am ci ay junni place ndeysaan euh, ñooñu ñëpp xam naa seen yéene maa ngi ñaanal suñ Tuubaa teggal yàlla teggal leen teg loxo yokk leen ci la ñuy nekk defal leen ay xibaar yi kawe seen jot ci barke suñ Tuubaa waaw sant nañu baax <laughs> bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala tey jii lool foo laajte Serigne Saliou mi jaay café ca Colobane ñu wan la ko fi mu ne nii ni ngi liggéey loo jeunes yu bare di leen fay bari nañu dugg ci njaayum café Touba ci loxoom lañu jaar mu ngi yaakaar ni liggéey bi dina gën a yaatu ngir mu mën a waslu àq bu baax ci emploi des jeunes ci barke Serigne Touba ala saydina wa mawlana muhammadin wa ala wa sahbi wa xadimi wa salama tasliman safaru bamsasin junnatun bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa xadimi wa sallama tasliman bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala على سيدنا ومولانا محمد